kon ñi ngi taxaw ak Serigne Amsatou Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacke. waaw ah. njiital Xudaamul Xadim. sëriñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. tey maître Khassimou Touré. Mm-hmm. daal di wuy ji boroomam. Mm-hmm. Euh, yan kàddu yi témoignage nga mën a yëkkati jëmale ko ci moom. waaw loolu de dana yomb lool. asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatu. di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. di jaale bokki taalib yëpp sunu xarit. sunu doomu baay maître Khassimou Touré doon jàmbaar nag yoo xam ne avocat Serigne Touba la woon am na nag moom xalaaxa bu rëy ndax bokk gi ak xarit gi ak bokk lu ñu doon liggéey dafa nekkoon nag bañkat ci métier mi nekkoon ba loolu sax tax noo boole ndax dañu ma yow itam dangay ngay bañkat ci yoonu Serigne Touba may itam may bañkat kon nag suñu àndee liggéey liggéey bi dina rafet dana yaatu loolu taxoon mu dem ci moom mu nekk suñu avocat di ñu jàppale ci yu baree baree bari bi ko masaa soxla muy guddi muy bëccëg day bàyyi lam daan def ñëw wuy sinu suñu liggéey na ci lu baree baree baree bari am na yoon um nu teg woo xam ni mënu woon a ñàkk te bañ ci jaaree gis nañ njëriñ li ndax dañ daan ne ci rajo yi ngal-ngal rek di coow ak yenn association yi mu ne lii du nii dañuy lëkkaloo may seen avocat bu defee ngeen bind lettre président ministre de l'intérieur premier ministre président assemblée ñoom ñëpp bañ àgg ñu def ko biñ bindee lettre yi moom mën nañ ko jox moo ko yóbbu yëpp ba ci Macky ku war dem moo dem jox la sa lettre kon kooku jàpp na ci liggéey bi ndax dañ doon ànd ak ay taalibe yoo xam ni dañuy am seen mer dañ jëfandikoo doole te loolu yoru ko waaye moom bi mu ci duggee gis nañ ci avancement bu bari fu waaye nekk te wax ci sëñ bi lu jaadul muy bitim réew muy biir mi dañ ko kalaame euh, maître Khassimou Touré dana def lam ci war def ba jàpp ko tëj ko wa illaa kooka ñëw tuub kon taalib sëñ Tuubaa ngi woon nii mbokk ngi woon nii jullit ngi woon nii faatu nag waaye faatuwut ndax jëfam dafiy des ba faw ndax fu ñu tuddee liggéey bi mel nii te mooy liggéey bi ëpp solo ci yoonu murit alal yi bari na kër yi bari na oto yi bari waaye loolu ñurul woon sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa li ko ñoroon mooy defar nit ba mu jub doonub taalibe doonub jullit moytandiku yi ñuy tere nga xam ne doo ci jëfandikoo lan doo wax doo tooñ sa morom doo tooñ sa mbokkum jullit loolu nag mooy liggéey Sëñ Tuubaa bi gën a ñor mbay nag dañ kii nag ah, xaasimu dañu cee jàppale sëñ Fallu mi xam na ci dara ndaw la woon loo xam ne su ma mëntaa dem bu ne moo fa daan dem di dox ba yàlla saafara ko xam naa ko ñoom xam naa nag Sëñ Tuubaa mi taxoon muy jëf moom dana ko teer dana ko teral sëñ Basiiru moo ne woon buntam ci kër Sëñ Tuubaa waaye yaakaar naa du taseeg Sëñ Tuubaa dus ndax njabootam gépp koo dem am na fa xarit koo dem am na fa mbokk koo dem am na fa lëre kon du say njaboot Sëñ Tuubaa ku ne teg na fa war a teg te loolu rek mooy li am jël naa njaboot Sëñ Tuubaa waaye julli yëpp ku ne teg na la fa teg te loolu mooy li am solo yàlla na ko saa borom xaare àjjana te teew moom njabootam ak bokkam yëpp barke Sëñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullah